grand accident bi naka la demee. oui si accident bi moom dañ koo fekk fii quoi. Hmm. léegi man man damay gaare quoi. Hmm. bon affaire bi nañ ñu yegg mais yegg nañ ko ba pare. Hmm. ñu ñëw. bu ñëw nag gaañ bi lañ sóoraale quoi mais sóoraale ñu oto bi. moom lañ sóoraale. mais wax dëgg yàlla nag sant yàlla bu baax. comme moom gaañul deful dara sant yàlla. mais amul moor. non si amul moor amul moor. mais sant yàlla bu baax. est-ce que woo ngeen sapeur pompier pour. sapeur woo nañ ko mais jëluñu quoi. Hmm. jëluñu ñu ngi koy woo depuis sànq mais ñu hmm. mais nag ñu ngi toppatoo nag affaire bi quoi mais ay na fu mu nekk nii bi waaj bi moom lañu gën a kii quoi. xam mais instant bi léegi lan moo ciy pexe ginnaaw woo ngeen sapeur ñëwul léegi ki def accident bi nak a ngeen mu mujjee moom da ngeen koy yóbbul seen bopp hôpital wala fii sapeur ñëwul du dem. si sapeur bu ñëwul. Hmm. ñun ñu xool beneen solution quoi. yóbbu ko feneen lu ñu gënoon nag sapor ñëw jël xool affaire bi lu mu war a demee ñu xool yaram bi waaj bi naka war a demee quoi waaw mais instant nii moom depuis sànq ñu ngi koy woo mais jëluñu jëluñu nanguñu ñëw quoi. Ah, accident bi nu mu demee nu mu demee accident bi carrément. accident bi moom wax dëgg yàlla mais dogal yàlla quoi. Mm-hmm. dogal yàlla parce que yàlla lu mu def loolu lay am quoi. Mm-hmm. waa moom day doon kii quoi mais affaire. Euh, mais noonu la quoi si lu mu dal oto bi wala dafa jeg-jeg saa rek daanu. si dafa jeg rek daanu parce que day doon tourné dem jëli ay yeneen bagage yooyu. Hmm. après euh, xam naa frein bi moo xawoon ay daag yoo affaire yooyu affaire bi moom oto bi daanu. xanaa lu mu doon daw dafa bëri. non bariwul bëriwul. bëriwul bëriwul mais tournal bii nii naka la si oto bi mën a daanu. mais circulation bi quoi. circulation bi circulation bi xam nga affaire yi moom la demee noonu quoi. mais est nekkul moom xale bu ndaw kii boo xoolee bu amee vingt ans si la yam ngeen hmm. jox ko oto. si mun na nekk parce que ci liggéeyam la nekk quoi mun na nekk ci liggéeyam la nekk mhm. waaw. solo mais fi oto bi tëdd ni est-ce que du ngeen insisté woo sapeur pour ñu jéem a xool naka lañ koy déplacé. si ñoom bu ñu waroon ñëw bu ñu ko woon bu fekkee ñëwoon nañu ñoom waroon ñu vérifier oto bi mhm. nu mu war a demee ñëw xool waaji bi mhm. mais instant yii ñun fu ñu nekk ni mu ñu verifier auto bi ci waaj bi lañ. nekk depuis kañ la ñaata temps la dafa gudd boobu ba léegi. oto bi. Hmm. parce que léegi mu def ay temps trente ans. Ah, trente minutes waaw trente minutes waaw. ok am na solo man maa ngi tudd Issa Balde. Issa Balde.